waaw salaamaaleykum maa leen nuyu bu baax di leen di leen ziar eh, di leen eh, ndokkeel bu baax ci ci bis bi man la docteur Mamadou Youm maa ngi nekk fii clinique Cheikh Abdou Lahad eh, nekk fii directeur des soins doon médecin généraliste waaw ñu ñëwoon rek xanaa pour leeral tuuti rek ci lu jëmoon ci lu aju woon ci bis bi muy journée consultation bi ñuy ànd ak waa Moukhaddamatoul Khidma ci jumaa ji waaw ginnaaw bi ñuy sante suñu borom nag julli ci yeneen di santaat Sëriñ Tuubaa bu baax te eh, loolu ndokkeel ñëpp di sant suñu borom mi ñu taw féexal ñu ba ñu fekkee waat bis bi eh, leeral yi rek du day jëm ci maanaam eh, bis bi nu nu nu mu déroulé woon par rapport ak consultation yi nga xamante ni si amoon na fi Euh, nga gis ne ànd nañ ci ak ay docteurs yu yu bari yoo xamante ni si ay généralistes ak yenn spécialistes yoo xamante ni si ñëw nañ fi euh, yàlla dogal ñu nag ñu ñu def ko ci jàmm. waaw xam naa ni malaat yi mën naa ni euh, amaana xawoon nañ takku tuuti waaye yàlla suñu borom tawféexal nañu ba nga xamante ni si nañ lañ ci doon séntu daal am nañ ci lu kawe suñu njort. waaw xam naa ne nag pour lu jëm ci wàllu malade yi nga xamante ni lim bi nga xamante ni si xool nañ leen fii Euh, mën naa ni comme dafa amoon ay spécialité yoo xamante ni si am na fi lu mel ni wàllu urologue baa ngi fi woon am na dentiste yu fi nekkoon ophtalmo bi également mu ngi fi woon amoon na pédiatre euh, mais xam naa ni médecine général bi moom moo ci li mu médecine générale bi moo waaw naa ni daanaka bu ëpp téeméeri nit ci ci wàllu médecine générale xool nañ leen fii Euh, wàllu moom bi tamit mën naa ne juróom euh, juróom juróom-ñaar fukk ak juróomi doomu aadama euh, jot nañ leen fay saytu seen seeni bët wàllu pédiatrie yi tamit ay mu ëpp ñaar fukki xale daanaka xool nañ leen fii waaw pathologie yi nga xamante ni si nag moom moo gënoon a kii ci li nga xamante ni saytu nañ ko comme li ëpp ci ñi nga xamante ni si xool nañ leen fii ay mag lañ bokk na ci li ñuy wax maladie chronique ndax ku wax mag rek daal di wax. lépp lu jëm ci tension wax lu jëm ci jabet wax lu jëm ci euh, ay arthrose ak maanaam feebaru articulation yax yeeg yooyu mën naa ni pratiquement yooyu yooyu mooy pathologie yi nga xamante ne si euh, ëppoon moom moo ci li ñu gis ci ci wàllu mag yi boo xoolee tamit ci wàllu bët yi tamit comme wax magit daal di wax lu mel ni cataracte wax lu mel ni gula ko mag yooyu yooyu tamit am na ci cas yoo xamante ne si euh, maanaam desere la lu jëm ci wàllu pédiatrie bi tamit pédiatrie bi am na ci xale yoo xamante ni si comme période bii nga xamante ne si moom lañ nekk xale yu ci bari daanaka li ñuy wax ay pathologie euh, euh, respiratoire maanaam lu mel ni wàllu rhinobronchite yeeg yooyu day day bari loolu nga xamante ne si xale yu bari ci ñi nga xam ne ñoo nañ fi daanaka loolu lañ loolu la ñu desale si ñoom sans compter nag yenn dermatose yeeg yooyu waaw mu doon loo xam ne nag yàlla dimbal nañu comme amoon nañ ci ay docteurs yu xarañ yoo xamante ni si ñu ngi fi woon tey tamit ñu def mettre à la disposition ñi xamante ni si ñëw nañ fi ay médicaments yoo xamante ni si doon na permettre képp koo xamante ni si ñëw na fi buñ la saytulee sa yaram ba noppi danañ la may garab yi nga xamante ni si moo fi disponible yi fa disponible yi tamit ñu orienté la fa nga xamante ni si boo fa demee di ko di ko mën a am waaye jubluwaay bi rek moo nekkoon maanaam saytu nga xam naa ni benn bis moom amaana tuuti na sax pour saytu ci lépp ci ci nit ki ci wàllu wér-gu-yaramam ndax ku wax santé wax suivi wante li li ëpp solo ci ci lu mel nii mooy contact contact bi ngay am ak malade bi maanaam permettre malade bi mu non seulement mu saytu yaramam mais mën na ko permettre mu mën a fàggu maanaam fàgganiku ci yenn mala feebar yu bari par exemple su fekkee mag moo xamante ni si ab tension mu ngi koy yoot wala diabète mu ngi koy yoot ak yooyu nga mën koo waxtaan ak moom ba nga xamante ni si dina teg ko ci yoon woo xam ne bu ci tegoo rek daana yóbbu yooyu yëpp mën na amaana mën na si mucc waaye itam permettre ko tamit soo ko demee ba nga xam ne am nga lenn loo gis ci moom lu lu mel ni benn feebar boo xam ne ci saytu nga ko ci moom it nga mën ko orienté teg ko ci euh, moo xam danga koy booleeg docteur wala foo xamante ni si daal da leer na fii bu continuer suivi lépp lu mu bëgg ci wér-gu-yaramam rek maanaam mën na ko am pour man loolu mooy loolu mooy objectif bi waaw ndaxte mën naa ni pratiquement euh, benn jour de consultation moom daanaka mënoo cee ñëw rek euh, am ci am ci lépp daanaka loolu daal mooy mooy mooy jubluwaay bi waaw suñu borom nag taw feexal nañu ba nga xamante ni si docteur yi fi newoon yàlla may na leen compétence boo xamante ni si moom la ca war yëpp daanaka am nañ njort ne def nañ ko di ñaan suñ boroom borom dafa taw taw feexal ñu ba ñu yàgg ko fekkee hmm, ay édition yu yu bëree bëri te ñaan képp koo xamante ni si ñëw na fi suñu borom defal la taw feexal ba li ngay séntu sa wér-gu-yaram nga am ci lu kawe loolu sa njort waaw loolu daal moo nekkoon moo nekkoon kàddu yi di jégaluwaat